jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen leader bi di people 221 di nuyu suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi di na suñu borom dolli euh, ñu ngi ci lalu hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla na leen yàlla euh, ñi nga xamante caabi da leen a ginnaaw yàlla na leen yàlla may liberté ba ñu delluwaat seen njaboot waaye nag di ñaanal ñi nga xamante yàlla da leen a jël ci coobareem yàlla na leen yàlla yërëm te leen euh, tey nag ma seeti sama sama directeur tey moom gars yi nañ comprendre rek xam ni tey euh, apprenti bi seet si directeur am mu ngi noonu nag muy Fadel nekk nekk nekk ku baax vraiment nekk aussi tamit koo xamante ni damay wax ni bi mu ñëwee ci liggéey ba te yàq ko ñun ñi tey buñ ci amee fit ginnaaw yàlla tey bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ñu poussé ñoo ñu encouragé moom ci terrain bi ba ci bërki démb ñu dajee ci levée du corps bi moo ñëw ni ñu carrément def leen nii def leen lële te bu ko neexoon aussi tamit loolu du ko ci def donc c'est à saluer moom lañ dalal fii ci People 221 fas yéene si xam moom waxtaan Fadel ñu ngi lay nuyu guy gi maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa people 221 ak ñi ni seetaan yëpp di sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant Serigne Touba suñu yaakaar di ñaan jàmm ci réew mi mhm. di ñaan luñ fiy wax rek waxtaan rek yàlla neen njëriñ mhm. te lépp euh, ñu xam ni rek doomu aadama mooy wax mhm. doomu aadama nag matul man ngaa wax mu baax man ngaa wax mu juum waaye liñ ci jublu rek mooy wax lu rafet wax lu jëriñ réew mi du nuyu nag fi ngeen ma fekk muy euh, sunu kër. Hmm. di euh, Dakar Buzz Dakar Buzz ndeysaan di nuyu sama PDG. di nuyu effectif Dakar Buzz yëpp di ñaan hmm. yàlla def jàmm ci yow mi. Hmm. di ñaanal sama malaat yi tëdd ci lal yi yàlla ci leen. ñu jiitu yàlla xaaral àjjana di ñaanal ñëpp jàmm ak bonne volonté yi may jàppale ci malade yëpp. Mhm. di xaar nga ñëw ci waxtaan bi. d'accord am solo mais Fadel gars yi nag nee nañ leer Fadel fan oto bi Fadel gars yi fan yii Fadel day liggéey ak état xam nga Sénégal moom. <laughs> Fadel de na leer gi leeru jaamu yàlla la ak samay ñaari waajur. Fadel liggéeyu la kenn. Mhm. Fadel Dakar Buzz lay liggéeyal te Dakar Buzz kenn ku ne gis na ni mu taxawee ci dëkk bi. Mhm. bi ci gën a am solo mooy social bi. Mhm, di liggéey jàppale doomu aadama yi. Mhm. bu leer gi daal peut-être sama ñaanu wayjur xanaa. Mhm. waaye du leeru xaalis du leeru leneen. ndax Fadel moom day xëy sax pour mu taal otoom bi def ci essence sax c'est tout un problème. Hmm. d'accord am na solo euh, ma ñëw ci fee yi nga xamante ni euh, amoon na muy accident bi amoon keroog yaraax euh, ñu gis ni tamit sonn nga ci ñu gis tamit taxawaay bi nga xamante am nga ko aussi tamit. Mm-hmm. Euh, Fadel ba tey sénégalais yu bari xaw a am jaxasoo. Mm-hmm. que ni loolu noonu amul ay scénario la. Mm-hmm. Euh, yow mi nga xamante ni woon nga ko yow mi nga xamante duggoon nga sax ci bis bi. du ñàkk ay explication yoo xam ni boo ko indee rek yenn ci sénégalais dinañ a sukkandiku. dugg ci bis bi maanaam nekk moon ci bis bi. waaw mais bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a ñëw di jël image yi nekkoon ci bis bi. d'accord loolu bi mu amee mi ngi amee yaraax. bi loolu amee ñun amul accès pour mën a egg xam exact la xew foofu bi ñu ñëwee fekk nañ bis bi lakk jël nañ image bis bi jël chauffeur bi comme ni ko ñëpp jëlee ñu jël chauffeur bi expliqué détail yëpp bi ñu xëyee pour topp information bi jaral nañ ñuy dem fekk chauffeur bi famille rang waxtaan ak moom ngeen gis émission yi ñu ci def moom it mu waxaat li mu waxoon bi ci des mooy que ni euh, ñaan yàlla def jàmm ci réew mi mm-hmm. euh, bis bi ñi si ñëpp yemee ñi leen ñi ñu ci lañ ci yemee. daanaka xamuñu ci lu ci nit ñi xamul li ci am lépp ñëw senegale ñoo ko gisandoo gis nañ ni bis 65 bi tàkk na nee naan ñaar dee ci moment yi ñu fay dem tam man gisuma woon koor gisuma blessé par la suite lañu nit ñi signalé nañu am na ay blessé ngeen gis blessé jëli nañ leen ci beneen bi ci des ci lañu signalé dañu am na ñaari koor ñaari koor yi gis ngeen après dem nañ jëli ko fee ca euh, Médina mhm. keroog mi leen di denc lu dul loolu daal amuñu ci beneen information lu dul loolu lañ ci am te ñoom ñëpp ci yamandoo ñoo ko gisandoo. Mhm. Mm. bi nga accès ci bis bi nan nga décrire situation bi. waaw bi ñu ñëwee fekk nañ bis bi laaj. Mhm. bi ñu ñëwee amul accès pour mën a egg pour filmer si le coup parce que fekk nañ ministre de l'intérieur ñëw fa ñoom bu ñëwee ak ni ni état di doxee bu ñëwee du nangu keneen dugg boobu gisuñu koor dégguñu koor. amul accès pour mën a filmer li xam ca biir. bi ministre bi defee discours am ba dem ñun ak ñëpp ñoo ñëwandoo. jëlandoo la fa am muy biis bu lakk. moment yi ñuy jël foofu tam yu ñuy jël foofu gisuma fa koor yu ñuy jël foofu gisuma fa blessé par la suite nag ci la nit ñi génn daal ne man blessé laa ñu jël leen mooy paa bi doon raam noonu di lakk. ak beneen maître bu ci waa Dakar ba jëli muy dëkk Yarax ak setam bu lakk bi. loolu daal lañ ci am comme ñëpp. ci information. Mhm. ñu bari ci sénégalais li leen jaaxal mooy yaa ngi koy wax léegi ministre de l'intérieur Antoine euh, bi affaire bi amee rek sur les daanaka sax ñenn ci presse yi moo leen fa xaw a njëkk sénégalais yu bari xaw a am jaxasoo ci loolu. waaw loolu tam d'accord euh, ñun bi ñu ñëwee moom lañ fa fekk fekk na fa benn presse na fa quelques presse mais mhm. tam kenn ku ne ak ni nga koy jàngatee xam nga Sénégal moom kenn ku nekk sa xel. Mhm. kenn ku nekk bàyyi na tam ak sa opinion nga xalaat li dal sa xel nga ne la. du ma xalaat bi a baax du ma ne bi baaxul mais kenn ku nekk nangul dalal sa xalaat nangu na la tam nekk sa xel dañuy bàyyi nag sénégalais ñoom ñu jugé a leeral mu leeral lépp mais mm-hmm. kenn ku nekk sa xalaat te nangul nan la kon mm-hmm. du ne force sax tam mm-hmm. euh, tamit interview yi nga xam ni def nga ko euh, xaw na am réeroo parce que boo xoolee ku ci mel ni chauffeur bi li mu wax ak euh, beneen maire bi li mu wax tamit xaw na am différence sénégalais yi bari tamit xaw a am jaxasoo ci côté boobu waaw chauffeur bi wax na maire bi jëliwuma ko mais suñ benn collègue bee ko jëli wax na mooy ñaari wax yu différent loolu ba tey kenn ku nekk sa opinion parce que ñu li ñu mën mooy jëli nit laaj ko mu wax. Hmm. li des mooy sénégalais ñooy jugé sénégalais ñooy xool kenn ku nekk ah, ni nga ko xalaatee nga defee ko mais kenn ku nekk na sa xalaat. Hmm. du ma ne sama xalaat moo baax du ma ne sa xalaat moo baax kenn ku nekk am nga ci xalaat oh, chauffeur bi wax na li kii wax li léegi nag danga may ñëwal ci chauffeur bi li mu wax. chauffeur bi moom dañuy agresseur yi dañoo taal euh, bis bi ba pare dugg ci biir jël seeni i waaw chauffeur bi loolu la wax. Mhm. te bi ñu demaatee loolu la waxaat. Mhm. maire bi maire bi seen collègue bi jëli moom daf ni loolu amul. Mhm. daf ni ñoom bi ñu ko taalee dañoo taxaw ba bis bi di jàpp ñu door a dew. ñaari wax léegi nag li mooy li ma waxoon rek nit ki mën nga koo euh, bañal léppam mais xalaatam doo ko bañal. da nga koy bàyyi moom sénégalais peut-être ñoom bu ñu jugé. dinañ xool fii wax ci yanu maanaa nekk ñu wóoyatale ko fa mais kenn ku nekk li nga wax nangul na la ko ndax maire bi. mi ngi woon ci bis bi duñ ko laam-laamee parce que gis na ay blessé dem chauffeur bi moom moo doon dabal léegi dañuy bàyyi Sénégalais yi mais kenn ku nekk a hésité ci kii moo wax mhm. li nga wax mën naa nekk dëgg ñu def seen jàngat xool na leen ko jugé mhm. mu am ci image boo xam ne tamit xaw na jaaxal sénégalais muy maire bi soloon lu blanc li ñu ngi naan bis bi euh, tàkkoon maris ci la maire bi yéeg ñii ni bis bi nga xam ne moo nekkoon yaraax fa la maire bi yéeg euh, yéen ñu mën waaw boobu moom sama aqulay taala laa ci wax sama bàmmeel laa taxaw biis bi maire bi soloon lu blanc li mi ngi tàkkee maris biis boobu biis 37 la. ah bokkul ak bii raax bi. non non loolu moom xulu xaq wal kaana ma daal. Mhm. loolu lundi la am. Mhm. bi ma ñëwee yam ci maire bi maire bi jëliwaat naa ko interview mu leeralaat loolu. bi ma ñëwee yam ci moom ma ne ko ci passager yi nga mu ne ma waaw mu ne ma bi ñëwee dana ne wàcc leen ñu wàccum jooro taal bis bi booba kenn loru ci bi ko sapeur di fay maa ngi taxaw. sapeur yi fay nañ ko beneen boobu beneen bis bi naan dafa am moori nag boobu mu ngi am yarax mu 65 mais bis bi maire bi sol lu weex li moom bis 37 bi la ñu ngi ko taalee maris boo xoolee voie yi sax bi ci teggi maris bi la mhm. teggi maris bi la pour lu leer rek taxal jarama ñu demaat ba jëliwaat maire bi këram maire bi gën a leeral loolu. Mhm. Mm. ñu gis ni am na benn moment boo xam ne tamit dugg nga ci bus bi euh, sol benn sol benn sol benn ma xool ma ne ndeysaan Fadel xool ko mhm. a a touché sénégalais yi que mhm. ko def. moment yi wax loolu ban ban yëg-yëg nga am bi nga toogee ci bis bi. waaw mais lu metti xam nga man yàlla bu ma bindee mënu gis nit lu metti man moo xam ngay jullit moo xam ne ko jullit bëgguma gis lu lu lu lu metti sama mhm. bëgguma ko ku ko mën a def rek ak lu ku ko mën a def rek man rafetluwuma ko xawma nag yan contexte moo tax ñu def ko tam kenn ku nekk sa xalaat kenn ku ne ak li ak fi nga toll mais man yàlla bu bindee mënu ma gis lu lu bu ma gis sax xale bu naaj. yàlla bu ma bindee loolu man gis ngeen sax samay TV ci bari su ma seet jeeku feebar sax bu expliqué yeen détail dama ciy too parce que yàlla moom bindee noonu mënu ma gis lu metti boobu ñeewante dong laa ci am te ba may def loolu xaw ma sax ndax am na ko ci gaañu ko ci gaañuwut mm-hmm. mais comme gis nga bis bi melokaan bi mel rek dafay metti loolu rek laa ci ñeewante boo tax ma def déclaration ni nanu waxtaan am réew bu toll fii dañuy waxtaan te xam ni réew mi ñoo ko bokk. Ah, mm-hmm. ñëpp. ñoo bokku réew mi. Mhm. muy jullit muy chrétien kenn ku nekk ñoo bokk réew mi kenn ku ci am nga ci parti. Mhm. Ah, pour ñeewantu boobu dong la ndax yàlla moom bindee mënu ma gis nit lu metti mhm. mm. ñu bari tamit foofu noonu xaw fa indi benn benn benn werante am ñu doon wax sax ci commentaire yi naan Fadel Fadel complice la ci ci ci affaire bi. commentaire yooyu noonu naka nga ko doon jàngatee. non non loolu peut-être euh, merewuma leen de peut-être euh, danoo comprendre ah, ah, parce que man li may wax rek man lu ma ci def sama aqulaay laa ciy xool. Fadel benn ndaw la boo xam ne euh, dépassé na dépassé naa fi may waxee lu ma gëmut. Mhm. lu ma la mën a ci man euh, euh, ñooñu merew ma leen parce que àdduna moom moo mel noonu ñëpp mën nu yem xalaat kenn ku nekk nangul naa la sa xalaat kenn ku nekk nangul naa la li ngay li ngay li nga li ne sa xel mais man mi nga xam ne man la engagé man te ma toog sama bàmmeel xam naa ne xel ni ne li may def man la engagé nekk ma ci lu may nëbb nekk ci lu bon man population bee ma ñor mhm. réew mee ma ñor. ànduma ak kenn ki ma àndal mooy mooy mooy population bi particulièrement jeunesse bi parce que li Fadel doon tey nit ñee ko def. kon euh, li may wax rek mooy que yi leen delloo si xel te xam ni Fadel Fadelu Sénégal la Fadelu euh, particulièrement euh, social la man loolu moom mooy li ma ay li li ci man te loolu lay dund kon da ci am loo xam ne peut-être kenn ku nekk sa xalaat nangul naa la ko nag même bu nit saagaa Fadel tam Fadel baal na ko jàppuma ko jët ko man dama jàpp ne dafa comprendre rek wala dafa jàpp ne xalaat yee wuute rek mais man du ma wax lu ñaaw te ku ma wax lu ñaaw it baal naa ko te fayantoo ma ndax xam naa ni xel ni ah, bañ ñu ma peut-être danoo ñàkk ko comprendre rek. Euh, Fadel dañuy ñëw ci ci chauffeur bi gis nañ ne bi muy bi muy def témoignage yi euh, Sénégalais yu bëri lu ñu lu ñu remarqué mooy chauffeur bi amul benn pression si muy wax te bu demee te gis nañ ne ba muy wax tiitul aussi. bu demee ba wax ne euh, agresseurs yi dugg nañ ba ci biir bus bi jël ay affaire génnaat ndax jàpp nga ne loolu noonu lu ñu war a mën a bàyyi mu dem la ak situation bi ak cas bi fu mu toll nii. waa daf ci am loo xam tam loolu du man loolu peut-être da ngeen di seet chauffeur bi waxtaan ci ak moom peut-être moom dina ci indi leeral parce que chauffeur il faut sénégalais xam ne ni ngeen ci mel nii laa ci mel. information la ñu wax ni ko ñu dem fa comme ni fa ñëpp demee daf ci am leeral yoo xam ne su ngeen ko bëggee da ngeen di seeti chauffeur bi. waxtaan ci ak moom peut-être moom mu gën leen cee leeralal bi muy wax dafa ànd ak sang-froid wala dafa tiit wala tiitul mais comme li ngeen ci am rek laa ci am ñëw yam ci information bi jël ko traité ko topp ko di ci dox guddi di ci dox bëccëg mhm. te ci am ci gën a mhm. laa rek bi eh, eh, nan nga doon def bay am contact que na aussi tamit pour nga gis blessé yi wala nga xam euh, ni aussi tamit yomboon nag sa côté ndax da ku nekk ci état mhm. ñu ngi may seetaan am bu dee am na ci kenn ku nekk ci état ku jëflanteeg Fadel na ko wax Fadel xamul kenn ci état ci télé laay waxee dimbal bi ma ci am mooy que ni def naa interview daan ne képp ku ci am blessé wooteel ci 78 601 11 11 soo ci wootee foo nekk ñu fekk la fa. Mm-hmm. muy numéro commercial Dakar Buzz. blessé yi commencé woote dul ma sax jot damay ñëw rek ñu ne blessé nangam woote na fi dem fa comme ñëpp. parce que maa ko joxe devant leen ku ci am blessé ñëwal ndax bi ma demee ci bis bi gisuma fa moor gisuma fa blessé mm-hmm. pour lépp leer na ku ci am blessé wooteel comme ñëpp. Mm-hmm. ndax amul yenn moment yow toog nga xaw a su ne lii complot la. non loolu ma ci lu ma ci sikki saaka ci complot la am lu dul complot. comme ni sénégalais yi kenn ku nekk amee sa xalaat. ni laa amee suma xalaat. c'est l'essentiel que li ma war def naa ko. joxe naa numéro téléphone mi 78 611 11 ku ci am blessé wooteel nga woote te yaakaar naa ne ñi wootee jëli nañ leen ñu gis leen le res nag ma ne complot du complot loolu man mënu ma sori. li li am solo daal mooy que ne joxe naa numéro téléphone ku ci gaañu wooteel ñii jàpp nañ ni ay blessé lañ woote nañu bu mu mënta demit am na yenn éléments yu fa dem ñeneen ñi nga xam ne sama tànk oyof na dem naa leen. Mhm. dem nañu aussi tamit ba gis ci deux morts keroog yaakaar naa ñoo fa nekk na woon. Hmm. Euh, euh, bi nga paree ba waxtaan ak seeni i parents euh, naka nga ban réaction nga am foofu. waaw ñeewantu leen rek parce que bakkan dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa sax ci doom dama rawatina nga jur doom waaw loolu dal ko dafa metti di leen masaw di masaw comme ñëpp parce que gis nga li fa xew. mooy di ñaan daal yàlla yërëm leen te yàlla xaar leen àjjana ndax ay xel lan te ay innocent lan mhm. d'accord euh, euh, ma ñëw ci li nga xamante ne aussi tamit euh, ba tey damay des ci ci ci ci ci ci ci la ci jour ji mhm. ñu gis ni yàgg nga def ay interview yàgg nga def ay accident ñu gis ni mhm. Fadel bokk na ci journaliste yi nga xamante ni tey lu bari li xaw a nit ñi ci yow lañ koy gisee mais sa sa sa sa sa sa sa sa interview bi xaw a indi polémique xaw a indi réeroo loo xam ne mosul am ci say ci say ci say interview non yaakaaruma ko parce que euh, man li ma doon def li ma war rek laa def information wàcc na nit ñi war nañ koo xam topp naa ko dem naa liggéey liggéey ma ci war a liggéey te li ma ci wax lu leer la aw ma ci làq aw ma ci lu may nëbb wax naa leen que ni man bi ma demee ci bis bi ci moment yi bis bi gisuma moor gisuma blessé def naa annonce ci benn numéro téléphone képp ku ci am blessé wooteel nit ñi woote ñu dem awma ci benn polémique wala yenn information yi boo leen ko a a a a sax boo ko génnewee ñu ni fii nga far wala fee nga far lan nga jàpp ni mooy waral loolu. non jàpp ma ne sénégalais dañoo jàpp ne ànd amee da ngay gis liggéey bi ci Dakar ba di def damay wane dama koy def di wane tous les maanaam bu lu ci am dama naan lii la kon jàpp ma ni Sénégalais danoo jàpp danoo ànd ak état. waaw mhm. ah, danoo peut-être ku nekk ak sa xalaat nangul nañ kenn ku nekk xalaatam mais ñun jegewun état laalewun état suñu yoon newul ci état. d' am na solo Fadel xam naa ne tey moom Fadel moom <laughs> gars yi xam xaw a jaaxle. ndax ndax am apprenti bee toog ak directeur te tey directeur am daa jëlee engagement yu mat sëkk moo tax. <laughs> non non mais <laughs> <laughs> non non li am rek laa wax li am laa wax Fadel social la Fadelu Dakar Buzz la encore une fois population bee ko ñor particulièrement jeunesse bi mm-hmm. ñu ciy liggéey liggéey bi nga xam ne moom lañ ci te parce que lu mu doon jeunesse benn ko def mm-hmm. lu mu doon population benn ko def mm-hmm. kon fadeel eh, li ko ñor mooy mooy population Sénégal li ko ñor mooy ñaanal ñiy suivre Dakar Buzz ak beneen site bu mën a doon yàlla defee leen jàmm uh-huh. yàlla def jàmm ci réew mi ndax uh-huh. Fadel nitu jàmm la jàmm rek ci la <laughs> <laughs> da ngi def code tey da ngi def la paix xew non mais xam nga Fadel <laughs> ko xam xam ko ci kaf fooree bugguma gis lu lu lu metti dëgg la koo xam ne bu seetee ku feebar sax moo ko man li may yëg man maa koy xam uh-huh. noonu la ma suñu borom bindee mm-hmm. kon euh, loolu euh, rek li na ci man rek laa wane. Mhm. mooy que ni jàmm ak salaam ak ñaan ci réew mi jàmm. daal di wax ni daal képp ko am nattu yàlla ko yàlla teggi. Mhm. ku am tiis yàlla may la xoola muñ te ñu feebar yàlla may leen wér. allahumma amin am naa mbégte ci dalal la fii. a am mbégte kuy <laughs> suma xarit bi de la fin ci émission bi. di ñaan jàmm ci réew mi di ñaanal daal euh, yàlla def jàmm ci réew mi magal gi ñuy jub. yàlla may nu fekk ak tal mhm. te yàlla may nuy xéewal te yàlla def jàmm ci réew mi luñ fi wax su jubee ndimbalu suñu borom la suñ ci amee benn kàddu bu juum nan nu baal te xam ne lu rafet rek lañ ci jublu. Hmm. Fadel du wax lu ñaaw di ko def te yéenewul nit lu bon Fadel li nekkee woon démb ci la nekkaat tey mooy ne ci lu baax sax ci te ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. ku ne ci nat daal yàlla ko yàlla teggi. te yàlla def jàmm ci réew mi. allahumma amin am na solo moom laa loon fii mu nekk Fadel nekk vraiment nit ku baax nag nit koo xam ne li may wax ni euh, ñun ñi nekk moom des fois sur le terrain xam nañ coono yi muy daj xam nañ aussi tamit yéene